si votre site d'information www.tactic.sn pour vous livrer toute l'actualité nationale et internationale à portée de main. Politique, culture, société, people. Tactic, c'est votre portail d'information en vrai. ah non làmb moom yàlla la def xale yi banlieue bi yëpp foyee nañu làmb dem ba ci biir euh, làmb ji intéressé ma euh, na naa yu bëre ne écrit caara yor xale yi. Bombardier ma yor ko ba doon roi des arènes euh, fa la fa laa jógee nag créé école de lutte Lamsar noonu la demee di leen entraîner euh, ba ci biir ci laa doog a daam ci laa doog am euh, carte ménagère créé naa école de lutte ak fi ma jaar caaro yeeg Bombardier yëpp te taxut boobu doonu ma ménagère mais ginnaaw ba maa ngi yor ay mbër yor ay écurie soo doonee ménager day gën a yomb pour nga leen mën di démarcher ay combat noonu la demee. waaw problème bi da nga tëb da nga ne quinze sax mais ñun année bi ñu organisé bi ñu formé tegale nañ presque ñetti édition ñooy jël paie te boo fekk nañ fay écrit yu mag ñu dem ba ci biir xam nga làmb noonu lay demee mënoo toujours ngay doon paie mooy li ngay wax jël nañ fi quinzième saison bi passé jël troisième mais problème bi mooy euh, même bi ñuy jël paie dama doon wax paie intéressé wuñu li ñuy intéressé mooy bokk fi ne bokk nañ ci écrit yu mag yëpp. munoo leen munoo leen juróomi écurie te boole woo ci lamsaar ñu am bëri yoo xamante ni dañuy bëri ci stade yëpp stade bu mag bu ne am nañ bëri bu fa mën a bëree grand combat ci écurie boo xam ne am na écurie yi mag loolu nag sant yàlla moo lay wane atteindre nañ suñu objectif c'était juste suñu bokk mais du ay pay ak i dës loolu intéressé wuñu li am solo mooy nga bokk am na écurie fi yàgg tam buñ ne diw bu écurie sàngam sax duñ la ràññee mais bu buñ ne diw écurie lamsaar sax da ngay xam ne lamsaar écurie bu mag la xam nañ fi mu ne loolu moo ci am solo beneen bi dama daan gis bu lamsaara mosaan tegale ñaari defet wala ñetti defet da nga gis sunu làmb affiché ko su ma woowee Ibakat maa ngi koy nuyu def passage ak Dembale ñu ne ma noo max da ngeen a bokk ci écrit ba yéen ak ay Fass ak ay Rock Énergie ak Balla Gaye bu ngeen amee ay victoire defet dañ koy wax loolu sant yàlla la ndax écrit yooyu ñoo ñu jiitu mais tey mënoo lim fukki écrit juróomi écrit te boole woo ci lamsaar kon mën nañ ne atteindre suñu objectif. non loolu ñu ni ko parce que gisuñu ko mooy nit mën nay wax. waaw nga wala nga ne ci site internet yi di wax même écrit lamsaar ay frère lañu ñoom ñëpp ay xarit lañu moo tax man du ma gérer détail joobu Diop nga wax ak mu nees ay xarit lañu nees léeg mu ne ma dew ma fenn parce que boo beroo sa ruq di entraîné gisuñu la léeg ñu laaj la foo ne nga ne non maa ngi beru sama ruq mais amul lu dul écrit bi te bu écrit bi amee rendez-vous mag ñoom ñëpp dañuy ñëw su booy amee combat ñoom ténor yi dañ leen ni assister boo gisee sax euh, lamsaar amul tête de file lu mel noonu laa daan bañ dama gis yenn écrit bu amee tête de file dañuy xëccoo njiit ku ne naan maay jiitu maay jiitu moo tax bi ñuy lamsaar ma ne amul tête de file na ñëpp dajaloo rek ñu reyante ku am combat say mag jàppale la ñoom it bu xale yi amee combat ñu jàppaleen bu mag ñi amee komba xale yi jàppale leen ci te lamsaar loolu dafay am ku am bés ñëpp lay taxaw. non loolu moo ko wax rek mais ñun gëmuñu loolu ndax nees ci la fa la daal yi. non ñàkk fa nees lu mu foofu la ko amee fa la daanee Elton fa la daanee Ama Balde fa la daanee Papa Sow kon nees fa la déggee daan yi loolu wax la rek ak xalaatam xëy na moo toll mais nees moom it euh, bu amee defet du tax ñu ñu ŋàññ ko ndax ndam lu ne indi na ko écurie bi dañuy bëgg rek mu liggéeyaat continuer euh, jiite ay xal ay ay rakam. waa Ama Sène nekk na roi de arènes euh, mais mérité na ko ndax Ama seen lu ne daj na ko ci laa mu bëri fi ay tàkkusaan yu méttee métti. te nag rêve am yëpp moo doon doon roi des arènes euh, kon bu fekkee doon na roi des arènes lu mérité la ndax Balla Gaye mi ko daanoon bul fàtte ne Eumeu Sène daan na ko ñaari yoon làmb nag noonu la euh, day neex tey suba mu naqari euh, mais Eumeu li yàgg na koo rêvé mais bu ko doonee du bett kenn ndax làmb moom li nga war a am kenn mënu koo xañ te yàlla noppi na àdduna lépp sotti na film bi rek la ñuy dawal dañ koy ñaanal rek mu ko di ñaanal Bombardier moom it réussir na loo xam ne benn mbër mos ko réussir ndax il est le seul boo xam ne moo mos sa ñàkk roi des arènes amaat ko waa xam nga moom position am Gaston du nëbbu Gaston mooy politique na nëbbu ko diwlaay politiqueal mais mbër mu engagé politiku ñu te kay ñëw ca làmb ja làmb ja moo koy indi mais Gaston loolu muy defit am na ci droit ndax Gaston loolu def na ko ci làmb ndax da wax PS fa laay milité ndax sama famille PS la ñu mais politique ma su voté jotee nag danaa dem votel PS mais tey bu demee ba ne léegi maa ngi ci ginnaaw euh, Macky Sall di ko jàppale maa ngi APR dama koy jàppale am na ci droit ndax Gaston du tricher moom lim gëm rek ak lim sentir lay wax loolu am na ci droit. Mhm. Mhm. waaw loolu mën na ko wax euh, ak nam ko waxee mais déggin lay laaj mais ku ne xam ne ne mais Macky Sall ci boppam dafa yaatal ndax euh, day bëgg ñëpp ne ci ginnaawam te sport xam nga arène bi ñu ko inauguré waxuñ waxuñ APR dañ ne arène sénégalaise. xëy na Gaston waxee noonu wala nit ñi bañ a dégg fa mu waxee loolu xër la rek gu mu xër ci ci ci Macky Sall ndax moom du tricher fu mu ne fu ne day wane ne maa ngi ci maa ngi ci lii laay def ak maa ci lii mais balaa booba da nga dégg mu communiqué neneen dul nii teewul nag décision am xam naa du ko dindi moom di jàppale Macky Sall mais làmb ji moom am na nu muy demee lépp mënta doon politique ndax non ma sax loolu yàgg na ci làmb yooyu yàgg na ci làmb mën ngaa xëpp nit yooyu yëpp charme làmb la làmb ak coow ànd li may wax rek mooy ñoom nañ defaraat euh, xale yi ñuy àndal problème bi mooy euh, di bëri ay quatre-vingts ba ci cent millions nga nangu sa xarit booy àndal mu di la ñu ko yàqal sport bi rek laa bëgg ñu ñu ñu sauvegarder ko nañ ko sàmm bu kenn di la yàqal sa bés ñaareel bu ñu dee demati signature ñu tànn ñi ñuy àndal bu ko defee violence bañ am parce que bu ñu defee violence leen am na ñu ne mooy dawloo yenn sponsor yi nga amoo lu dul làmb kon bul nangu sa xarit yàqal la ko. li may conseillé ñaari mbër yëpp samay doom lañu suñu amatee bés nañ tànn ñi leen di àndal ñoo xam ne jàmm rek la ñuy indi ñu yóbbu leen bu ko defee loolu su jàmm amee loolu réussite làmb la rawatina sport en général waaw. waaw man mënu ko ma yaakaar kuy daan ndax xam naa nit ñi dañuy wax ci wàllu mystique mais ñoom ñaari mbër yi ni ma leen xamee xam naa kenn mënu cee jekk sa morom ci gàllaaj te nag bala maa mën a pronostiquer damay bàyyi ma ngir seen état de forme mu gën a jege ñuy entraîné ma di leen xool su boobaa danaa xay xalaat ne diw moo gën a pare mais ñoom daal xam naa ne ku ci ëpp entraînement gën a sérieux ci wàllu entraînement mën nga am avantage ci sa morom mais góoma combat bi mystique feeñ ci waaw. li may wax rek mooy euh, mbëri nañ defaraat seen entourage ñi leen di jàppale rek parce que mbër mun a ki lay jàppale ñi ay élèves lañu ñi mécanicien menuisier tapissier kenn ku ci ne am nga métier yow nga opté doon mbër kon liy sa teraanga bul nangu ko la ko yàqal nañu waxtaan ak seeni xarit. ne bu ma dee dem bugguma fa big violence bugguma coow ndax lu toll ni arène bi ñu tabax ko chaise yi doon matière plastique ñu bëri naan bu fa làmb ñëwee mën nañoo damm chaise yi yàqu ko ñun war nañoo jomb loolu ñun waa làmb mais nag ki ci war a jiitu mooy mbër mi nañu waxtaan ak seen xarit ak accompagnant yi bu ko defee ñu segg ñin war a àndal nit daal sa teraanga bul nangu la ko yàqal di ñaanal nag euh, promoteur ñoom it ñu réussir ndax làmb ji métti na xam naa li ñuy daj mais saison bi ñu génn daal euh, ñu ngi ciy euh, Euh, ndukkeel bu baax ku ci mel ni euh, waa Leewtoo nga xam ne ay gan lañu ñëw tëgg set sept journée te yëpp affiche yu mag lañu loolu tax na sax euh, làmb ji jaxaat ba ñu bëgg ñu bëgg ñu bëree ngi dellu si waat ci làmb ji loolu moom dañ ci félicité Leewtoo di félicité promoteur yëpp nag. non man moom sama couleur vert vert moom bëgg naa ko ndax naataange la la. waaw kay léegi non plat moom euh, xam naa ne man wàllu lekk damay bañ faale ni summi ma mais man daal attaay laa gën a bëgg moom fu ma ko romb sama xel dina ci ne moom. attaay attaay moom fu ma ko romb sama xel dina ci ne mais lekk moom sonaluma. rab wala mbalax. non mbalax. Euh, politique wala non politique. non man je suis apolitique man politique man man politique yi teeluma. man baatu wolof moom la neex. man baatu wolof ma baatu wolof daal xam nga wolof nag daa yaatu te boo tànn bàyyi bi ci des mais xam naa ne daal. Euh, ngor moom yitteel na ma trop ndax sama sëriñ dañ ne diw ja diw jaay na ngorom mu ne ngor mu ne amu ko ndax ngor ku ko am doo ko jaay nee na ku am ku ne jaay na ngorom dañ ko koy jiiñ mais ngor ku ko am doo ko jaay non man ñoom ñaar ginnaaw ba tendance dafa am ci ñoom samay ñaari doom lañu dama leen di ñaan rek ñu réussir ndax yenn bi ni yenn diis na ñu yeggali seen carrière en beauté ñu Aziz sama rakk la euh, Gaston sama grand frère la Euh, ñoom it euh, te benn lañu kon aw aw ma di tàmm kii wala kay damay ñaan rek li ñu dëgmal ku ci ne nga yàlla defal la ci ndam. léegi xam naa mhm. euh, ma ma ko man bëgg naa ko sérieux. waaw <laughs> bëgg naa ko sérieux. non baax na ndax reetaan day day day day day faj sax nit. day faj sax nit day tax nga mer boo dee ree day tax même aw ñaawteef da ngay bàyyi yu baree bari parce que muñ euh, am na solo mais boo ci boolee di ree day gën a neex na day tax nga gën a nga mën a gérer lu bëree bëri waaw. léegi euh, noonu lépp moom mën naa ko mais damay bañ xale yi kaañoo ma mais baal na noonu baal noonu xam naa lépp moom li ma ci xam li ma ci xam bëri na mais loolu dama koy leb ba beneen waaw xam naa ne daal xam naa ni daal loo ci mënti dégg maa ngi leen di ñaanal ngeen réussir lii ngeen dëgmal ca kaw ca kanam waaw loolu daal laa leen di ñaanal waaw lépp nag bi ma leen wax mooy euh, maa ngi koy wax bërki démb nee naa nee naa laaj koloñ bu neex làmmiñ a koy jaay waaye bakkan a koy jënd <laughs> waaw la laaj koloñ bu neex làmmiñ koy jaay mais bakkan a koy jënd ñaareel bay télévision yi yëpp a bokk baay ñoom ñëpp TV la sant baax na jërëjëf <laughs> baax na jërëjëf